اللهم صل على سيدنا محمد الذي من صلى عليه عند إيصال العلم إلى الناس حفظه الله من البحث وأمن من الوسواس الخناس ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki téléspectateur Galaxy تي في تي ريوم اك تي بيتيم ريو نيغي ngi دي نويو دي di سياره di leen ndokkeel ci weeru tedd wu sell wu màgg wi di ñaan yàlla fu ko waay màggalee yal na yàlla nangul la bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam na ne ñi ngi àndoon ak yéen bi weer wi teroo ba léegi tabaarakallaahu ci ay plateau di waxtaanee kan mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ay jikkoom macha allah ñu joxeen lan rendez-vous démb à Tiwaawan macha allah egsi nañ nii ñi ngi Tiwaawan incha allah fas yéene ànd ak yéen tabaarakallaahu ci lépp loo xam ne wàcc na fi ñu dégtal leen ko incha allahu taala waaye it danañu ànd ak yéen ci ay plateau yoo xam ne nii yu am solo la tabaarakallaahu ànd kook ay boroomi xam-xam waxtaanee kan mooy maam Cheikh Seydou El Hadj Malick Sy radiyallaahu taala anhu waaye waxtaanee kan mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ay jikkoom parce que gàmmukat lii tabaarakallaahu solo si mooy mu def njeexintal ci jëmmi ya jëmmi jëmmi doomu aadama. te mooy ñu jël jikkooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jikkoo ko kon topp leen ñu incha allahu taala ñaari fan yi bit bu set rek danañu ànd ak yéen ñaari plateau incha allahu taala tabaarakallahu benn bi ci suba gi incha allahu benn bi ci ngoon gi tabaarakallahu boo bëggee xam nan naka lay demee nanga ma bàyyi xel incha allahu wasalaamualeykum.